bi biñ ma fale ba def ma président de la république ma prêter serment ci la décidé ne cërub ndombal tànk secretaire général Pastef les patriotes bi ma te bi ma takkoon tekki naa ko bés ni ko tey pour doon président boo xam ne dafa tëddee njaaxaanaay ngir ñu jëmmale ci waxtaan yi nga xamante ne dafay dalal maanaam espace politique bi maa langu politique bi ndax yaakaar nañu ne te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy waxtaan ak sénégalais yi